benn image mën na ëpp solo junni moo la ñuy faral di wax ngir rek dëggal solos nataal lu jëm ci wàllum dëggal xew-xew waaye nag du image yëpp la ñu war a fësal ndax am na ci yenn yi nga xamante ne day jural ay jafe-jafe ñu koy xool loola waxal ñu war a xoolaat bu baax ni ñu koy fësalee. atelier bi atelier ba am solo la li muy li muy euh, jàngale mooy dañuy liggéey suñu liggéey mooy wane suñu liggéey mooy wax li xew. waaye kenn mënul wax lépp kenn warul wax lépp te kenn warul wane lépp loolu nag euh, am na ñoo xam ne xam nañ ko am ñoo xam ne xamuñu ko il faut ñu jàngal leen ko loolu moo waral lii tey. fii ci Sénégal nit day jël image fu ko neex daal di koy fësal ni mu ko neexee li ni mel tax Corrède jóg ngir rek sensibiliser ñu yëngu ci wàllu wi. nit waroo ko filme te joxu la autorisation donc loolu nit ki da ko war a xam. Euh, boo filmé ba pare lan nga war a wone ak lan nga warta wone parce que yenn saa yi nga wone loo xam ne waroo ko wone mu indi tolof tolof donc euh, dañuy gindi nit ñi ci lël bi ñu gën a xam nan la ñu war a saytoo photo ak vidéo ci seen liggéey. bile sensibilisation nekk lu CNRA di rafetlu. waaw damay wax souvent ne daa ñu gën a luñu ndax dëgg-dëgg man dama ci bokk ci métier bi euh, waxtaan ba jiboo moo gën CNRA nekk position d'influence. dinañ ci topp bu baax nag euh, di xool li xew euh, di yedd di jàngale ba nga xam ne yenn njaaxum yi du am ndaxte suñu dëkk dëkk sutura la. respect sutura ak kóllëre nit ki. su wàllum fësal photo wala image. droit à l'image su le régime de la protection des données personnelles lii di ay thèmes yi nga xamante ne ñii di doyen de la presse daal dinañ ko waxtaanee jëmle ko rekk ci acteur de média yi. il est acteur di ko rafetlu